Eh, jërë ngeen jëf dellusiwaat nañu ak eh, yéen ci beneen numéro ginnaaw bi nga xamee ni jaxal nañu ak madame la ambassadrice ñu ngi ak eh, directeur Soryki Kaba ñu am mbégte bu baax ngir jàkkaarloowaat ak moom ci ñëw bi nga xam ne ñëw na ko fii dégg ngeen ay kàddoom ci ay dafa wax ne dafa ñëw ngir indi message boo xam ne dafa jógee ci président waaye it taatan li nga xam ni moom mooy yitte Sénégal yi fii mm, seet naka lañ ci taxawee. démb nag def ngeen benn rencontre bu am solo bu yaatu lool muy yéen ak ñi nga xam ne mooy sénégalais yi nekk fii jëriñu daayira yi association yi tey it ak yéen ak état yu réew mi safa défense publique dem ngeen fa du ñàkk nii am na lu ngeen waxtaanee loo xam ne lépp rek ngir euh, gën a dimbali sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii tey mën nga ñu résumer ci lu gàtt lan moo tukkee ci sa jàkkaarloo ak sénégalais yi ak waa défense publique bi nga xamee ni tey demoon ngeen rencontré ak ñoom. Euh, Et Souri Kaba la ambassadeur Souri directeur général des Sénégalais de l'extérieur waaw comme ni ko waxee la amee je crois que mbégte bu rëy lañu ñu am euh, bi nu ñëwee fii ci Sao Paulo rencontré Sénégalais yi démb daanaka guddi gi yëpp parce que ñu ngi fa jógee daanaka ay 4 heures du matin presque 5 heures du matin jot na tey ñu yendu di waxtaan ak waa DPU comme ni nga ko waxee mu kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy défendre. Euh, gouvernement fédéral bi ci lépp loo xam ne seeni intérêt la cim ci mbirum migration waaye it am autonomie bu leen permettre loi yi nga xam ne gouvernement mu ngi koy proposé ñoom ñu mën cee wax mën cee addu ak autonomie ak liberté bi nga xamante ne ñu ngi koy xaar ci ñoom pour que ñu mën a bàyyi xel davantage étrangers yi nga xam ñoo ngi dund seen réew donc bi ñu waxtaanee ak ñoom la ñu fa jëlee dal na xel parce que d'abord gis nañu ci seen biir disponibilité pour lépp lu jëm ci mbirum sénégalais yi parce que sénégalais yi dañu am benn comportement bu exemplaire fii ci Sao Paulo moom ci boppam mu firndeel ñu ko ba jox ñu si sax benn misaal parce que dañu am benn centre d'accueil boo xam ne pour ñi nga xam ne dañuy déposer ay këyit foofu lañ leen di entendre foofu lañ leen di auditionner. mu nekk ay ay bureau yoo xam dafa am ay chaise am ay ay ndaw yu fay toog donc dafa bari loolu toog na ci ay quarante postes mu ne souvent bu fekkee étranger yi dañ leen fay recevoir sénégalais yi lañu gis ne ñoom ñoo gën di nekk di wax katu dëgg sénégalais yi parce que yeneen xeet yi dañu seetlu que ñoom dañuy sos dañuy yokk walla ñu wàññi ci li jëm ci seen passé alors que foofu dañ lay waxtaan ak yow pour xool li loo fi indi loo fiy def pour xool ñoom fu ñu la mën a féete ba nga mën a am këyit ñu régulariser la donc mu am ñoo xam dañuy sos ci seen biir wax pour ñu mën a jéem a nax ki ñuy waxal pour ko dugal ko foo xamante ne seen mbir day gën a accéléré wu moom ci boppam mu firndeel ñu ne ñu ah sénégalais yi de ci wàllu woowu ils sont exemplaires yokkati ci nag ay liggéeykat lañu ci seen wàllu liggéey waaye li nga xam ci ëppaloon importance. mooy cas de yi nga xam ne ñu ngi koy def ci sénégalais yi te souvent muy am ay yéex-yéex ci wàllu enquête ak ci wàllu justice moom ci boppam mu xamal ñu ne ñu ci cas de meurtre yëpp yi nga xam ne tey ci étranger wala ci brésilien ñu ngi koy constaté fii ci dëkk bi un pour cent yi rek moo aboutiragum kon nag loolu day wane ne bariwaay bi xëj na moo tax muy yéex. wala ñàkk personnel moo tax muy yéex wala ni mbir yi compliqué moo tax muy yéex waaye lu ci mun ti am yëkkati nañ sunu kàddu teg ko ci loxoom te comme nag ambassadeur mu ngi fi woon suivi bi dina am ci moom pour que lépp loo xamante ne ñoom mën nañ cee jàpp ñu jàpp ci. am na nag ay yeneen mbir yoo xamante ne waxtaane nañu ko mais du ay mbir yoo xamante ne euh, jàpp naa ni cër la ñu wax ko fi te waxuñ ko ki ñu yónni moo tax dafa am loo xam il faut ñu dencal ko ko. pour que bu ñu ko ko yeggee moom ba mu jox ñu ci ay ndigal ñu doog ci nag mun a wax ak seen mbokk sénégalais yi nga xamante ne ñoo fi nekk ak képp koo xam yaa ngi ñuy déglu alhamdulilah. mu mel wax nga ñi ngeen demoon ci muy autorité yi nekk fi nii seen rencontre ak sénégalais yi démb ci ay doléance lan moo ci daal ci yoo xam ni jàpp ngeen bu ngeen demee dangeen ci taxaw ci sens. waaw li ci ëpp te ñu antu ko démb wax ko waxaat ko bokk na ci consulat général fii ci Sao Paulo naam amoon na fi. waaye en 2012 président de la république bi muy def rationalisation des dépenses publiques ak des structures établissement dafa tëjoon consulat général bi amoon fii ñoom jàpp nañu ne effectivement njariñ la parce que nombre de sénégalais bi fiy dund waaye également positionnement géopolitique bi ak stratégiquement ni mu mën a assister sénégalais yi seeni jafe-jafe en plus de l'ambassade bokk na ci aussi ci seen revendication wax naa ko léegi suivi dossier wu cas de meurtre yi bokk na ci seen i ci seen i revendication passeport yi ak document administratif yi lu mel ni ci ay passeport ay casier judiciaire ay extrait de naissance bokk na ci seen i seen i revendication lépp lu jëm aussi ci mbirum financement te bu ñuy xool loolu ñu posé yëpp comme problème solution yi am na fi alors lépp lu jëm ci mbirum document administratif xamal nañu leen ne leen bu ci yàlla àndee tant que ñu ngi am lu tolloog téeméeri sénégalais yu fi nekk te yittewoo ko commission dana ñëw woo ko kon nag loolu aussi liggéey la laaj parce que il faut pas rek ñaar wala ñett soxla passeport nekk ci réseau sociaux yi di attaquer nit ñi su ñu amee téeméer liste boo xam ne mot na téeméer danañ xar suñu tànk tubé ba commission ñëw fi pour enrôler leen. loolu nag organisation mooy mun a tax ñu yegg ci mu ngoog passer message bi pour que ñu mën a identifier ñi nga xam ne am nañ problème mu passeport lépp lu jëm ci mbirum financement leeral nañu leen procédure yi parce que bu nit ñëw ne la dinaa la concevoiral sa projet dinaa la ko déposer dinaa fexe ba ñu financer la ko yow rek nga tëdd saral ñax ñaf sa njaax di xaar ñelaw di xaar waa ji ñëw ne la waaw projet bi déposé naa ko waaye mu ngi ca tiroir ya loolu aussi dafa nekk loo xam ne euh, jaaduwul ci ki nga xamante ne projet bi nga yor yow ci sa bopp mooy jóge Sénégal dem bitim réew liggéey dimbale sa njaboot loolu projet migratoire la. def nañ ko pare mais mi ngi tëdd ci seen leeral na leen ko ba mu leer képp ku déposé projet tontu nañu la suñu la tontoogul wala bu fekkee jotaguloo tontu c'est parce que amul fu ñu la mën a yónnee tontu bi moo tax tontu bi yegsiwul mais képp ku déposer projet bu ñu étudier sa projet dinañ la xamal li ci ne bu dee baax na dinañ la wax ne projet bi baax na dinañ ko yóbbu ca comité de financement bi nga xamante ne moom mooy saytu ki ñu war a financer baax na nag ça veut pas dire que dinañ la financer baax na ça diir dire éligible na maanaam mun na am financement kan mooy financer comité de financement. léegi nag comité de financement yooyu depuis 2016 comité de financement amul li tax amul pour man amul njariñ li ci ëpp solo rek mooy nañu xam ne li tax comité amagul moo tax ku ci nekk ci ñoom jotagoo sa financement ñi ci war a am léegi nag bu fekkente ne étudier nañ sa projet bu fekkente ne éligible na wala éligible dañ lay tontu mais ku nekk Brésil ñu war laa tontu te amuloo adresse e-mail boo def ci sa demande amul fax téléphone boo ci def naka lañ lay tontoo. kon nag il faut que ñoom ñi nga xamante ne tey am ñu leetre bu ñu déposé ñu won man lettre bi ma xool ñu yónnee ma ko su ma demee dinaa leen utal réponse yi su ci adresse email yi nekkul ma laaj leen seen adresse email ñu yónnee leen ko pour ñu xam ne effectivement projet yi nelawul ci ay tiroir te loolu aussi liggéey la parce que ñun suñu liggéey loolu la mënuñu fee nekk ñu dénk nu Sénégalais yi ak seen i jafe-jafe ba pare ñoom ñu am keneen ku ñëw ne la dossier dañ ko dugal ci tiroir ñu ngay nelaw tax. leeral nañ leen ko te leer na ci seen i bopp et je crois que waxtaanu démb bi waxtaan la yoo xamante ne bu ñu sañoon dina gën di am ñoom ci seen bopp xamal nañu ma ko pour ko am a xaar bu waxtu di fii doog a ñëw leeralal naa leen lu mel noonu aussi parce que liggéey ku ci nekk ak na nga koy jëlee yow tey ni ngay téye sa micro ni ngay poser sa question même bu dee ne da ngaa jàng école ñu jàngal la ko it am na sa touche personnelle boo ciy andi ku ci nekk nañ la nangul loolu. kon nag liggéey bi nañ ko bàyyi rek muy jaar yoon comme ku ci nekk ci niñ ko bëggee li ci ëpp solo mooy bu kenn ku nekk toog su ruq di xool sa morom comme adversaire nañuy jokkoo ku ci am problème nanga woo ka nga war a woo waxtaan ci ak moom lépp lu ñu mën a andil comme solution ñu andil comme solution pour que ñu mën a saafara problème yi nga xamante ne identifié nañu ko fi. organisation ba soññee sax ñu gën yaatal li nga xam mooy taxaw fi ne nii honorable comme ni ko madame waxee ci nii wax na ni nekk na boo xam ni biñ fi am muy portal agréé tekkiwul dara noonu lañ ko mën a déggee yéen a ngi soññee sax naan Sénégal yi nañu taxaw pour président pour def loolu foofu it message nga leen ci message bu gàtt message bu gàtt parce que xam nga ñun sénégalais dañu am benn habitude wax naa ko démb. sunu mbokk joolaa yi sunu mbokku séeréer yi sunu mbokk alpulaar yi sunu mbokku bambara yi ku ci nekk day bëgg a boppam am sa association bu bopp sénégalais moo am habitude lu mu bokk lu ne rek jàpp na ne baaxul ba tax na bu ñu gisee ku ñu def consul honoraire mu nekk koo xam dafa bëgg Sénégal fayuñu ko salaire joxuñu ko oto joxuñu ko dara lu dul moom moo am alalam yéene ko Sénégal di ko jox Sénégal ci kër gu mu luwee def ko consulat wala bu fekkente ne am na ay machine ak yooyu yuy fonctionné wala sénégalais bu nekk si jafe-jafe muy déplacé wu te kenn joxu ko li mu koy defee yow nga jàpp ni kooku dafa am salaire nañ ko jox sénégalais yaa ngi juum kon li ci war a am mooy ambassadeur wax na leen ko démb leeralal nañ leen ko te leer na ci seen bopp ku ci bëgg a nekk consul honoraire bul xalaat ne da nga war a am salaire su leeree ci bopp ñëpp rek su boobaal mbir bi dina yomb su ko defee ki nga xamante ne dafa bëgg nekk consul honoraire ci dëkk. nga def acte de candidature soo defee acte de candidature bu ñu valider sa candidature mais ñu def la consul honoraire parce que gis nañ ay sénégalais yoo xam ci yeneen dëkk def nañ leen fa consul honoraire waaye lenn de xam naa ko ci gis naa ci koo xam ne def nañ ko consul honoraire ci dëkk du ma ko tudd du ma tudd dëkk bi waaye dafa gën a diviser communauté ba au lieu mu leen di gën a defar. et je parle en connaissance de cause parce que fu ñu amee problème man man maa leen di arrangé parce que jàppoon nañu ne ku ci nekk ci ñoom moom la ñu war a def consul honoraire du kële maa ko ko gën a yey ba mu jaral leen division xeexoo boo xamante ne sëriñu Sénégal yëpp ku ci nekk àddu nga ci te loolu aussi lu ñu war a moytu la parce que ñu njëriñ bu ñuy créer dara c'est pour que nit ñi ànd liggéey mais créer ko pour muy gën di diviser loolu aussi amul njëriñ. benn forum démb boo xam ne xalaat nga ngir moo taxaw fii ngir. Euh, parti yi nga xam ni dañuy yëngu ci jàppale Sénégal yi ci immigré ñu ñëw présenté wu loolu it bi nga gisee ak kilifa yi fii ndax jàpp nga ni bala yàgg loolu dana taxaw. waaw jàpp nañ ni fii ak at lay doon parce que démb la woon non tey maanaam ci fajar gi lañ ko doon waxtaane moo nekkoon le 13 août ma ne leen man dey bu ma sañoon bésu 13 août bi ñu daje tey ñu marqué ko ba 13 août 2019 bu kenn manqué. ñu tase fi pour organiser forum bi forum boobu nag liñ ci jublu moom laa leen wax li taxoon ñëwuma fi boobu ba léegi parce que communauté sénégalaise bi nekk fii ci Brésil musuñu maa bind lettre invité ma ci activité boo xamante ne ñoom ñoo koy tenir fii ci Brésil mën na leen du ma ñëw musta am kon nag dafay am solo mbokk sénégalais yi nekk Brésil yëpp bu at jotatee ci benn waxtu ñu dajale ñëpp ñu waxtaan ñu évaluer liñ defoon daaw fu ñu ci toll fen lañ jëm ñu poser problème yëpp ñu régler ko su ko defee su boobaa day fa am au moins benn bés ci at bi yoo xam dañ koy jagleel sénégalais yi nekk Brésil ñuy tase di communiqué entre nous ku ci nekk li nga am comme problème nga posé ko li nga yaakaar ne solution la nga posé ko ñu àndandoo gàddandoo yëpp demandoo ñun ensemble. loolu lañ ci jublu ñu ngi koy def ci yeneen dëkk di ci am résultat moo tax ñu yéene koo def fii. yàlla di di ñaan suñu borom aussi mu may ñu ci résultat te ñëpp rafetlu nañu ko et je crois que bu ñu génnee ci lii danañ ci liggéey bu baax incha allah. man la koy wax ci aéroport bi li mu doomu sénégalais yu bari donte ni fépp la ñu faatu ci biir réew mais fii moo ci raw ci Amérique latine loolu lan moo ci seen ay jéego surtout li nga xam ne moo di lu leen di delloo Sénégal. waaw jéego yi moo di ko démb ci biir waxtaan wi kàddu googu ñëw na ñëwati waaye situé nañu responsabilité yi parce bu kenn yaakaar ne yaa fuusu état bu Sénégal moo tax ñuy rey ay sénégalais loolu au moins dindi nañ ko ci xelu nit ñi parce que sénégalais ya nekk biir Sénégal am na seeni mbokk sénégalais yu leen di rey ci biir Sénégal nit ku lay rey sa alal la soxla wala amel nga ko een wala amel na la een mu jaar fa def musiba boobu. état munta teg ci ginnaaw sénégalais bu ne policier munta ne munta teg ci ginnaaw sénégalais bu ne militaire mu koy gardé munta ne ce que mënuñ ko def ca biir réew ma nag buñ ko yaakaar biti réew kon d'abord situé nañu responsabilité yi ba mu leer ci ñëpp leneen liñ ci yokk moo di que ambassadeur wax na leen à chaque fois su amee benn doomu sénégalais boo xamante ne dañ ko boom moom wax na leen ban liggéey la ciy def wax na leen aussi réponse yi nga xam jot na ko ci dossier yi kon foofu aussi leeral bi mu andi dafay wone ne ñi jàppoon ne ambassade bi dafay nelaw liggéeyul deful dara ci kaa yooyu am nañ information démb li ci des nag mooy bu amatee naka la ñu war a taxawee loolu lañ ne dañuy def comité de crise su comité crise amee association bi nga xamante ne ci dëkk ba la mbir ma xewee président bi day bokk ci kër mu ci crise bi ambassade mooy diriger mooy diriger comité de crise bi ambassadeur lay doon wala kam cay yebal ñu fexe ba am benn avocat bu leen di xelal ñu fexe ba famille bi nga xamante ne ñoom la ñu tooñ ñu boole leen ci comité bi su ko defee dootul nekkati affaire ambassade dootul nekkati affaire association mais dafay nekk affaire sénégalais yëpp ñun ñëpp ñu ŋànkangoo ko jàppandoo ko ci solution. dimbale nañ ñu nag ba bañ proposé loolu kenn waxul proposition contraire kon jàpp naa ne lu ñu validé la comme instruction bi ñu ministre joxoon pour ñu wéyale ko. ngeen ñëwee it ba gis euh, sénégalais gis ngeen ni yan bi diis na ci madame ambassade ba xalaat ngeen yokk budget bi loolu dafa taxaw daar daar wala lu ngeen wax la nii du ñu yokk budget ambassade waaye dafa am lu ñuy wax fonds sociaux yu ñuy jagleel ambassades yi ak consulats yi. te loolu nekk ay fonds yoo xam ne ambassadeur leeral na ko ci lay tibb as lëf buñ ko sollicité ci biir sénégalais yi pour jox leen ko mu xamal leen ne leen li mu yoroon ci semestre bu njëkk bi maanaam juróom benn weer yi njëkk jeex na tàkk semestre bi ñu ne leeru ko ndax dana jot foofu laa waxee ne dinañ ko roof loxo pour que moom mu gën di mën am fu mu féetee sénégalais ci wàllu social bi du waxu kese buñ ko waxee dafa am fuñ ko teg te buñ fi ñëwee aussi ba constaté ne yittewoo na ko sénégalais yittewoo nañu ko su nekkee à disposition te defuñu ko su boobaa wàcc nañ suñu yoon loolu moo tax ñu wax ko te incha danañ ko def. Argentine ak euh, manque représentant doon na seen i jooy kooku naa wax nga ci waaye gën ci xuusewaat rek ñu ci gën di lan mooy question Argentine bi. Ah, waaw waaw waaw je crois que loolu. Euh, lu dépassé suñuy compétence la. même bu dee ne sax suñu xalaat am na ci solo. waaye li ma ci mën a wax. moo di que bu kenn jàpp ni ambassade wala consulat suñ koy ubbi c'est parce que sénégalais dañ fa bari wala sénégalais dañ fa néew du loolu moo tax ñuy ubbi ambassade wala consulat. joxe naa exemple Chine am nañ fa ambassade am nañ fa consulat mais ci dëkk yañ ko am la fa nekk ci ay Sénégal motul 300 mais ay enjeu géopolitique la moo tax loolu am Pologne am nañ fa ambassade te pourtant la fa nekk ci ay sénégalais néew na Russie am nañ fa ambassade te la fa nekk ci ay sénégalais néew na kon nag le fait que amaguñ ko Argentine ça veut pas dire que duñ ko fa am. ça veut pas dire que sénégalais yi bari nañ fa wala néew nañ fa dañ ko fa war a am wala waruñ ko fa am lu ñuy étudier la xool ban njariñ la ñu mën a andil boo ko defee parce que diplomatie euh, relation d'intérêt la loo xaritoo xaritoo ak nit ki soo demee ba intérêt wu relation bi amatul benn njariñ même yow xaalis ba nga fay dépenser da nga ko war a xoolaat tey Brésil du ñu dépenser seen xaalis ci biir Sénégal ci ambassade du Brésil ba nekk Sénégal ci ci ci Sénégal dañ maa neex point barre déedéet dañ fa am intérêt intérêt boobu la ñuy jéem a sàmm kon nag Argentine bu amee intérêt Sénégal Sénégal am Argentine intérêt war nañoo mun a toog waxtaanee ko ba ku ci nekk ci ñoom xam fi ngay féete sa morom waxtaan bi ñu ngi ci waaye comme lu ñu dépassé la ñun li ñuy def rek mooy bés bu ñu laajee suñu xalaat mun nañu koo bañ a laaj joxe ko. dans le sens bi nga xamante ne ñun jàpp nañ ne sénégalais ni ñu ko waxee njariñ rek moo ci mën a jóge mais euh, président de la république euh, taxawaay bi muy taxaw dayoo bi mu am ci àdduna bi warul mun a njàkk soofantal demande bu mel noonu am naa ci yaakaar bu baax waaw. ci waxtu li ci des bëriwul bu fekkee am na loo xam ne bëgg nga ko leeral te laajuma la ko nga ñëw appel lay doon appel bi. dama koy jëmee ci mbokk sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Brésil nekk ci Amérique du Sud démb am na benn mbokk sénégalais bu yëkkati ay kàddu wax ci droit ak devoir mu tënk ko ci nit ki balaa ngay laaj say droit na fekk nga wàccoog say devoir mënuma accepter yoon bi mbedd bi rue bii kenn waru fee jaay ambulant nga forcé jaay ko fa yaay tooñ ci kaw tooñ boobu ngay tooñ nag benn état du la dimbali ñu ne la produit bii ngay jaay su ñu la jàppee fekk nga koy jaay dinañ la teg daan nga xam ko malgré nga jël produit ba di ko jaay wàcc nga yoon kon nag appel bi mooy lu ñu ti am yéene dimbale suñu njaboot lu ñu ti am yéene réaliser sunu projet migratoire nañuy fàttaliku toujours li nga xamante ne la nga dul nangu ñu def ko sa kër bu ko def kër jàmbur maa ngi leen di gërëm di sant ñëpp alhamdulilah. sant jërëjëf